baax yaa gën yaa riis yaa mën barke yonent bi kenn du yow aawa yaay aawa yaay aawa yaay mooy suñu aawa mooy suñu yaay aawa yaay aawa yaay aawa yaay aawa yaay xanaa sa chauffage yi mais ñi ay bataar lay big mama bi mel ni caterpillar xaw ma lu mu doon dugg si muy ñoddee ko waaye la ma ko yàq dootu ko defati kii du yàq sama émission sax ci loo ne dañoo zalu dañoo tiit instant waaw man man man man man man man man damaa jommi wujje toll na fi ma ne jarul énervé waaye laal nañ laalaake nag maa yëg nga ni doole lañuy jaay waye bu paré ba jox la ci samay astuce. dootuñu ko defee sa pañe bi moom rafet na eh waaye ñii dañ ma indal ba taluma ko. waaye ah jank yow luma la <laughs> waxo ma sha allah. xam kan nga de. Ya? waaye ya, rek leen li du pour bébé. nga ni no iya. digaluma la ko léegi sax. nga ni ma su fekkante ni bëggo go hmm bu laal tegal da ko te pour lan lii bu la koy wax kenn du fekke tegal ne tegal ne tegal ma noonu. sama lawbe waaw kay bu loolu weesoo jam ko baa gis nga li yaa ngi dégg. néeg bi demoon bu xeeñ. yëg nga ne indi lu ma la ci benn ñaar laa la ci indi. nga ne ma. xam nga lu ma bëgg ngay gunguni ci lu neex jam ko gis nga lii. yëg nga ne xuraan ay yaxam pëtëxee na ko bu dee. waaw loolu la. sang bi dafa yàgg laaj defaraat. ak lii. vaseline. noddante ay yaxam xoolal fu la ni bu laal sax laalal loolu na. wala bi jànk xam nga lii. bii mooy karité koko bi. jànk yëg nga ne local la. nga ni ma. damaa toog jël sama temps sama kër. defar ko ba mu ni muut. nga ni yaa ko defar. laay. ii way. yëg nga ni deux laa la indil. xanaa da ngaa bëgg ma ray ko nag. nga seen ko muy weex xoolal na ni tàll ci biir néeg bi te dara du yëngu yaa ngi may dégg. waa cuuraay bi moom li muy xëy na xadi. li xanaa du góowee Sénégal. dama laa sëyloo. ah yow koy sëyloo. lii dama cee jël sama temps nëbal ko gàmmu daaw ba gàmmu ren. lii xam nga ne ku ma jox cër rek laa koy génneel. ah nëb na de. ah waa. say góowee rek lii de buma ma ko taalee yàlla bu ñu door ndax xam odeur bi ci biti la. jank xet gi yow kii wu la ku commencé wu laa énervé. looloo tax looloo tax mu énervé wu. waaye jank laf cat laf cat laf cat. moo tax ma njëkk koo yëkkati. bii bii du bu cat ba. takkal ma sa ndigg suba ak ngoon bu dégg ba cat bu ko ndax na xam nga nga dañ bu baax la naan nañ la. ngi dégg. après ko ci ah waaw <laughs> teel ma nii li du ma ko laal du ma ko laal du ma ko laal waaye yow ba pare danga maa laaloo samay couleur nga def sa bleu de nuit génne say e eh, huran attumol ley déedéet damay rey doomu jaamu eh, ji nag déedéet yow bàyyi ma de ko wàññil benn per xamu ko de ko wàññil benn per balaa téeméer mu nelaw ba xam nga ni naroo jaam eh xam nga ni jeeg day xajam damaa bëgg nga mën ko aller retour su ma xajal muy sax te après sa kii visite bi na ma xajal eh lu ko kenn dul defal de ko defal de ko nenga nengal di ko aayoo nenne di ko noddante bàyyi ba tàkkusaan jot nga diri ko ba ci ëtt bi tegal ko paan xam nga dañu naan xale du def ñu ni déeta waay nga génne sa pot karité bu balaa bi ñu ni déeta waay nga laal ci sa carbonate nduggal sa ndox ba mu nugu gar sa boros waaw diko borosal ay tankam diko ko nga diko ko waxtaanal waaw neena la xur lepp lépp tax ci mom lii xamna ni bu bi mu juddoo ba tey kenn musu ko yow yow yow yow te pareegu ma. dafa am doore ci biir de doore. eh eh eh do ma bayyi jank xolal li man giri bi giri bi ah mo hmm, li mom lan la ba tey yow pareegu yow ya, xanaa da nga bëgg ma rey doomu jàmbur ci nak jànk xam nga lii. Ah, moom yow liggéey. maa yëg ma ni jigéen day parfum wu te du piis piis. Hmm? aldaaki. li mooy aldaaki. ba xalal ma ci sa ndox mi mu wax nga ngoon guddi. mel ne lu la ma la hmm. lii moo tax ma bëgg la. ndax danga maa xam li ma bëgg. lii moo tax ma bàyyi ñëpp topp la. nee naa la ba mu toppee topp sa jàmm boo ma bawee ba sa njariñ lenn dinaa la ko wax gis nga ñi ma gis ci kër gi ay chauvages lañ yaru bataar lañ leen yar yaa may dégg woon naa la nag man sama lépp fii la ma xam na geeral ak ñoom bataille psychologique xoolal ñuy defar ngay yàq ñuy gas ngay suul. te ay chauvages lañ yaa ngi may dégg. ay duurante ka gàjjanti lañ xam. xoolal loo yàq ñu yuuxu daw ñëw nga defaraat. ñu naan naa leen duma ci kër gi du may métti. te sa loxo du yow rek bul geer bul xeex bul xuloo xam nga nag tabaarikaal dama laa bëgg ta sa tee daa set. fi mu ne xam naa ne gajj lañ la yéene ak ak saaga bu leen ko may. xuri ma de lañ bëgg. waaye nag xoolal bu leen may xuri bu leen may xuri. avec ça nag du ma leen may dara. waaw fi ne nii. macha allah tabaarikaal yaa ngi say accessoire ne naa la geeral ba mu neex la dara du yow. foo jëm yow lan moo si sa yoon <laughs> ne la foo jëm laa la wax lan moo sa yoon fu ma jëm yow <laughs> yow xanaa xamoo ma man lan na fi jeeg bu capable te coupable man li dandiw ma la <laughs> boo ma rombee jaar ma ñuus la ba nga duwul nga ma moytu ma te fekk ma sama kër eh eh eh eh, eh waay Sam yow daal na yow mën nga ne ku fi dugg rek nga ñuus ku ma ma ñuus ko ba ma duul laa la wax loolu nga xam ñuusaate ba mu duul rek yow loolu rek mbaa xam nga ki ngay waxal kii de karateka bu mag la gis nga bu ma yéexoon tuuti ay yéexu na fi laa fi fekk waaye du doon jëmmam mbaa yëg nga ne Vanda mooy nijaayam dëgg la yow Vanda may sa nijaay xoolal rek yow benn sentir nga sax eh, Aïcha jàll sil fii boo ko bëggee xam jéem tey Mai. Pardon, ee eh, ee eh, liggéey nday day feeñ de liggéey nday day feeñ ba ciy noq ee eh, sawa mi liggéeyal na ma de maa xam nga ne bu dul woon xale bi yàq na ma moo yow bu ma noqee ba wekk sama saaj xaama demaale ko tey foo fekk day jong ma <laughs> waaye man nag tey jii moom damaa ñëw pour ñu waxtaan ndax nag jeewu nag tey la tey te luy jot jot na balaa ginnaaw dee te yow yaa joxe sa bés yaa joxe la kaat te la kaat ñëw na ba pare man mii sa bàjjan nag damaa bëgg ñu jàkkaarloo. nga wax ma li nekk ci yow su fekkee ne yaa ngeeg sa ndaw nga ne ma bàjjan maa ngeeg sama ndaw su fekkee ne leneen dafa am nga wax ma ko ma sàkk pexe ndax nag man xaw ma gàcce te xajuma ci gàcce sa juróom-ñaar fukki maam yi nga am yépp ay tooroodo lañu ay drobe lañu te ñun ñëpp dañoo jaar fa ñu war a jaar kon tey jii dama ñëwoon ngir ñu waxtaan nga wax ma li nekk ci yow ma xam ko man mi sa man duma la gàcce maa ngi lay waatal ni bi ma juddoo ba tey xaw ma góor bu fekkee dama war a xam góor tey ci laa gën nar def maa ngi sama ndaw musuma si ko góor dara te duma la mus a gàcceel jërëjëf kontaan waye ni rek nga mëna mel man do ma gatchel do gatché sa yaay do gatché sa jëkkër te gis nga bi bés li nga wax mu nekk ci yow bés boko ko ah su boba di nga ma téral di nga téral say morom di nga téral sa jëkkër ci kër gi di nga ruslo say non tayit do fay ba ci sey jigen li rek la am. Bopam, rek la am ak ndawam soko xasse ba joxe ñak nga lepp waye soko xasse ba tey ba jox ko sa borom kër am nga lepp ta du la masa yab goro du la yab njëkk jigen du la yab jarbaatu jëkkër du la yab ni ci mbedd mi kenn du la li rek mom la jigen di xaar comme que nak ba yow wolu nga sa bop mm-hmm. te li nga ma wax man duma ko massa ndax wu wunoo ma ñàkk fayda dama lay ñaanal yal na ci dugg ak bisimilahi rahmaani rahim yal na ci génn ak alhamdulilahi rabil alamin waaye dooma gàcceel toroo do sàmm ngaari jamaa maam joo am wàll la maam joo am sëgg siggee maam joo am maat taxali maa ko tax jaal kon toroo do yow doo mën a def lu bon mukk te doo def lu ñaaw kontaan naa nag ci yow yal na nga ci dugg ak bisimilahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin kontaan naa jërëjëf du ñàkk laa wóolu de moo tax ma di la laaj waaye da di bàjjan ak eh, doom dañoo jigéeyoo te bàjjan ay bàyyi léegi nag kii mooy sa sër moom ngay woddoo yal na ci yàlla def barke yal na nga ci am njaboot gu barkeel yàlla defal la ci teraanga defal la ci ngëneel te mu jig say bokk ak sa borom kër. jërëjëf Badiane kontaan naa ci déplacement bi nga def ñëw ba fii kontaan naa ci yow yow kontaan naa trop sama xol sedd na guy te de siggil nga ma siggil sa bopp ndax jafe na trop ci jamono jiñ toll xale bu jigéen bu toll na yow di gàdda ndaw ba tax na lii nga ma defal xam naa fi mu yegg ci man moo tax ma jël trois cent mille yi fasiyene da ko jox cadeau te di la xamal ni fek ñi ngi nekk maag yow suñu giir dund duma ma ci di la bëggal duma ma mukk ci di la jox cadeau ndax sédal nga sama xol bi torop siggil nga ma bu baax ba ma ni siggil nga ma